di ziar képp nga xam ni yaa ngi may suivre sama chaîne Teuf Connection TV Sénégal bon ñu ngi ñëw fii ba Kolda si benn studio bu nga xam ni sam frère comme ni nga koy wax tamit comme ni nga koy waxee toujours le hip hop c' est l' entrepreneuriat le hip hop c' est l' entrepreneuriat parce que majeure partie yu bëri da nga xalaat que ni les rappeurs comme ni nga koy waxee rek bon c' est des gens yu nga xam ni peut être musique si kii rek la ñuy yem te micro yeneen ak yeneen mais gis nañ que ni. le rap c'est de l'entrepreneuriat comme chaque fois dama leen koy waxee il faut ngeen oser il faut ngeen oser ngeen investir ci dans le milieu hip hop pour wane que ni le hip hop entrepreneuriat la entreprise la tamit dañuy dem ba gérer du monde donc nañ investir ci dans le hip hop en plus tamit il faut que partenaires comme ni nga koy waxee parce que majeure partie dañuy gis que ni. le rap dañuy manqué des investisseurs comme sponsoring yooyu dañ koy manqué donc na ñëw ñu investir euh, ci hip hop ah parce que euh, jeunesse bi ñu ngi si bon ñu ngi jéem a creuser comme ni mu leen ko wax waxee tey ñu ngi si euh, benn studio fii nii au niveau de Kolda muy studio Mayo Diawa ah, Mayo Diawa Ricora ah, ok ñuy ay ndaanaan ah, ñuy ay ndaanaan fii nii au niveau de Kolda gis ngeen studio baa ngi nii ah muy des matériels de dernière génération Euh, ñu ngi nii euh, xam naa ci kanam tuuti dañuy toog euh, ñuy waxtaan ak ingénieur bi nga xam ni moo nekk fii di gérer label bi si kanam tuuti dinañ ko teg caméra bi ñu yaatal ñu gën a waxtaan ak moom noonu lay demee ñu ngi fii nii ci diwaanu Kolda ku ni Kolda ni musique ni ni ni ni musique traditionnelle en même temps tamit comme ni nga ko waxee hip hop dafa. Euh, yaatu noonu la demee gis ngeen studio bi gis ngeen ni mu ñaa ngi ah, gis ngeen matériel bi comme ni nga koy waxee matériel de dernière génération mi ngi gis nga waaw ci kanam tuuti nañu waxtaan ak euh, technicien bi mu ñoo jox euh, information comme ni nga koy waxee ok Teuf Connection la di représente Teuf Connection TV Sénégal bon comme ni mu leen ko waxee sànq ñu ngi si studio Maya Diaw Ricoran ah. waaw léegi ñu ngi nii tiimali caméra bi ingénieur bi bi nga xam ni Euh, moo nekk fii comme ni mu len ko waxe gis ngeen na ah, euh, matériel bi fi nek bon bu day wax ni matériel dernière euh, dernière génération donc ñom ñu ngi fexé de telle sorte que musique bi nek au top ah. ok no la demee légui dañ koy baye mom mu présenter wu mu wax ñu turam en même temps tam mu wax ñu bon mo moom mooy kan. ok maa ngi nuyu ñëpp voilà maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ci vraiment chaîne bi.

piano, de guitare. Donc euh, euh, aussi euh, voilà, jot naa à Dakar j'ai naa liggéey depuis le dëkk Nous sommes Nous, ne ñoo sous-région Afrique Nous avons des ingénieurs de son et ils sont un peu partout dans dans le monde donc vraiment merci beaucoup télé vraiment si seen nous. Hmm. ok donc présentation de euh, wane na que ni euh, am na expérience euh, ci li muy def ah. donc léegi euh, bi nga dalee def maanaam mm, dama bi nga dalee def musique mm-hmm. si si si si mo ah, si si cadre général mm-hmm. léegi expérience bi nga xam ne jot nga koo am léegi loolu ñu bëggoon nga wax ñu expérience bi nga xam ne jot nga koo am sa wàllu liggéey comme nous ma déggee nous sa dafa di dafa ci expérience bu rafet expérience euh, ma vraiment euh, vraiment euh, découvrir lu qui ci culture lu tamit ci culture alors hip hop comme dañu nekk cadre hip hop je di musique euh, li gis naa développement ça c'est-à-dire euh, hip hop euh, moteur de développement la mu di li nga xamante euh, vraiment tout tourne autour de de hip hop muy politique muy économie muy éducation ak yeneen ak yeneen li nga xam lépp li nga xamante ne day day jëmale réew kanam lépp li nga xam ne day jëmale doomu dundu doomu aadama kanam vraiment hip hop am na ci wàll bu bu am solo donc non là comme on est tënkee donc expérience bi tu ci am ci sama côté yëpp euh, vraiment j'ai vu que hip hop musique d'abord di euh, li nga xamante c'est capital pour développement euh, doomu aadama pour développement njaboot pour développement dëkk ak continent. au niveau de Kolda tamit en tant que ingénieur de son. Mhm. les yow nan nga gisee musique bu Kolda nan nga gisee musique Kolda moo naan musique Kolda. Euh, c'est comme côté euh, jeune. bonne tendance mon fi disons que euh, tendance yëpp ñooy ñooy ñooy Mais dox mais boo ko euh, comme musique nous muy doxee musique dafay concerne concerner déjà des benn parce que c'est culturel c'est culturel Maintenant, ñi ñu fa déjà comme ay ay pël ñoo fi a na ay joola am ay wolof ay mais disons que musique traditionnelle bi am na fi am fi parce que loolu mooy réalité musique donc képp am xam-xam ci la musique la musique c'est d'abord quelque chose de culturel donc tout euh, euh, ça, ñu ngi koy wooyee euh, am ci wàll bu bu boo important mais musique urbaine tamit dafa di la nga xamante ne tendance la donc a na ci tamit un pourcentage bu am solo parce que jeunes yi euh, musique urbaine dañuy gën a déglu donc euh, muy hip hop euh, voilà muy reggae muy afro donc voilà tous ces genres de style en tout cas ñu ngi fii mais cosaan bi am ci wàll hip hop bi am ci bu am solo bu am solo vraiment bu important mm. mais en même temps tamit gis nañ que ni ingénieur de son mais en même temps tamit je crois que artiste instrumentiste là, instrumentiste là, euh, bon artiste là, je wax parce que artiste ça se définit juste comme quelqu'un qui a des, donc euh, voilà du ma je ne suis pas sur la scène mais je suis à l'ombre donc le plus nga xam moi, c'est accompagner ñi nga de ne scène donc artiste là, c'est vrai ingénieur de son artiste là, musicien de artiste là, Euh, tamit euh, voilà artistes yaatu na daal. ok mais euh, des fois tamit est-ce que du am benn clash entre ñi nga xam les jeunes parce que ñi nga xam ni rap pur et def ak ñi nga xam ne dañuy def comme rap traditionnel est-ce que des fois du am benn xëccoo si ñoom comme supposons ñi ñoom ñuy clash ñooñ ñi nga xam dañuy def style boobu noonu. waaw da am na loo xamante ne benn réalité boo xamante ne mu ngi am Kolda ci wàllu musique urbaine ci hip hop. parce que je fais quand même, euh, je fais quand même beaucoup, de, beaucoup de sons, de hip-hop. J'accueille beaucoup d'artistes, artistes de dans de Dalal. Donc, euh, les Massablous, c'est comme un peu fille, le sentir fille, même le sentir un peu Dakar, à une région. Parce que, euh, alors, dafa bëri une une musique clash musique clash parce que euh, bon loolu d'abord beaucoup ci hip hop bon c'est positif hein. c'est négatif et puis dañuy day am li nga xamante moom la ñuy wax euh, choc choc culturel choc générationnel mooy génération bu bees bi musique bu bees bi ak euh, musique bi nga xam ne dafay yàgg toujours am na foo xamante ne dañuy amalante njëriñ mais am na foo xamante ne dañuy dañ ci am choc loolu mooy waral des fois clash yi c'est comme entre doomu aadama ak doomu aadama. des fois dañuy neex. mais euh, est-ce que yow tu es pour ou bien contre comme tendance boobu noonu. est-ce que en tant que yow. Euh, da nga xam ne yaay programmation. yow tu es pour ou bien tu es contre euh, entre euh, ñaari conflit yooyu. waaw moo tax ma ne la am na am na wàll boo xam ne dafa positif. Hmm. c'est positif dans le dans dans le sens où différence diversité dafa am richesse bu ci nekk donc comprendre donc ñun noonu la àdduna bi doxee il faut que mu am ay diversité de de de personnes de de choses pour rôle richesse la bu comprendre. Euh, c'est néga néga lu négatif ci côté boobu mooy fi nga xamante ne euh, au lieu ñu exploiter euh, richesse boobu mais su fekkee ni dafa war a indi ay ay ay diggante ñaaw wala wala ay kàddu yu ñaaw comprendre nga ba donc contenu boobu duñ ko encourager ci musique parce que musique contenu am dafa nar a rafet contenu am dafa nar a riche comprendre nga bu baax donc message bu nar a jàll ci ci ci ci côté boobu donc nous comprenons une différence nous richesse nous ñu positif mais nous euh, donc nous on est responsable par exemple nous, nous nous, nous mais nous, un peu nous nous nous, proposer que voilà nous parce que nous son son mais c'est pour arranger aussi Nous nga nous comme ça Euh, mu objectif musique bi di nga xam day indi unité day indi vraiment jàmm day indi vraiment euh, li nga xamante ne mooy lu lu possible lu jëmale nit ñi kanam en côté boobu dañ koy encouragé donc loolu am na ci lépp ci àddina donc il faut qu'on comprend suñu suñu suñu suñu identité comprendre suñu suñu suñu suñu diversité pour pour en tirer dana bénéfice bo xamante ni daf ñu jëmale kanam donc comme ni ma la wax musique dafa di lo xamante ne bo boo xamante ci ñu ignorer développement donc comprendre donc musique bu yàgg mag ñi ak xale yi ak euh, vraiment tout le monde dañ nar am ben am coordonner vraiment cet effort de telle sorte que mu andi loo xamante dafa positif euh, te musique mo dafa moo ci la fekk baax. c'est écran Euh, comme quand on parle de hip hop. mënuñoo euh, mënuñoo mënuñu see dindi Tupac mënuñu see dindi Snoop Doggy Dogg ak euh, ñeneen ak ñeneen ay Dr Drim. donc j'ai vu sur ton écran d'ordinateur gis naa ci Snoop Doggy Dogg. donc ça veut dire que tu es puriste hip hop ou bien nan la fa demee wala comme ni nga ko waxee rek tombé moo war ay gaaf wala nan la fa demee noonu. comme dañoo jot a waxtaan tuuti euh, ci cadre musique urbaine hip hop la nekk je voulais créer benn cadre boo xamante ni dañu nekk ci contexte bi euh, man euh, disons que voilà je salue de passage euh, tous les tous les ténors du, du pop que xamante j'ai j'ai j'ai eu à les rencontrer voilà, parce que moi j'ai commencé d'abord par le hip-hop, vraiment. Voilà, parce qu'avec mes frères, le domaine de hip-hop. Donc j'ai partagé la scène à Positive Black Soul, j'ai partagé la scène Aldaraji, puis Jan Tibi. Euh, euh, donc, nous avons référence références hip-hop. Tupac, Nautilus Big, Public Enemy, bon, mon ami c'était Newberry. Comme nous l'avons dit, chaque fois musique day am toujours le références référence donc nous, c'est des références des teneurs du hip hop donc Sénégal nous c'est euh, euh, suma Sanyon bon dama ko dans vraiment PDS. donc euh, respect pour ces ces personnes des voilà donc le cycle vraiment donc nous sont des les précurseurs qui tàmbali te jëm kanam muy ci États-Unis muy Europe donc muy Asie muy tamit petit euh, chinois yi muy tamit ñun si Sénégal Afrique ah ak yeneen réew yu ci nekk donc foog ci àddina hip hop amna ay ténor amna ay références donc euh, je les salue de passage euh, pour liñ jum vraiment mooy wax ni hip hop vraiment liggéey na Sénégal lo xamantene vraiment buñ ci gëstoo tout dinañ gis njëriñam voilà ok léegi soo côté nii gis nañ que ni gis nañ ci benn guitare. gis nañ ci benn guitare euh, donc sànq ba tey ñu ngi waxtaan. léegi dañuy dem maanaam euh, ci euh, jëf bi. comme supposons fii instant bi bett nan la à l'improviste bu fekkoon ne nan la bett. ñun la nga defuñu benn programmation mu ndaw. peut-être avec ton guitare bu ko defee ñu xool ñu xool ba xam lu muy joxe. waaw ok juste euh, comme nous ñu ko dit, ci ci on a ñu ngi gis euh, mon euh, orchestre de jouer donc musique hip hop du faut que ci vraiment les les vrais ingénieurs de son dañ koy confirmer c'est d'abord un bon un bon technicien c'est d'abord être un bon instrumentiste donc je vous li nga donc j'encourage au fil de passage tous les gars ont un hip hop pour nous yem cette voix voix instrument mais ku si nekk da nga war a instrument maîtriser ko donc euh, pour gën a enrichir sa musique donc nous ñu gisee suñu fii dafa teg orchestre dañuy gis daara ji un orchestre dañuy gis tey PBS euh, di un orchestre donc il euh, y yemul ci playback parce qu'il faut maintenant nous bëggee révolutionner plus musique bi

嗯。